peut-être un peu euh, euh, revenir sur l'importance de ce travail-là. Parce que le budget permet à la fois de savoir les recettes estimatives attendues, mais également les dépenses à couvrir. Donc c'était important pour démarrer que le complexe puisse évaluer dans les détails l'ensemble des dépenses qu'il faut pour permettre à ces structures-là de démarrer. Mais également, il fallait réfléchir sur les sources de revenus. Au-delà de la subvention éventuelle de l'État, est-ce qu'il y a des, des sources de, ressources propres sur lesquelles euh, le complexe pourrait se baser pour supporter ces dépenses-là. C'est extrêmement important parce qu'en réalité, toutes les structures euh, de Renault, en tout cas, établissent des, des, budgets annuels pour dérouler leurs dépenses respectives. L'autre aspect également, c'était que on devait également produire un extrait de manuel. L'extrait de manuel, euh, est aussi important, sinon plus important que le, que le, budget, parce que ça euh, doit permettre à l'ensemble du personnel de l'administration qui sera là dans un moyen court terme de savoir les procédures à dérouler, en tout cas pour assurer une bonne gestion du complexe. Donc et ça, le, marabout y tenait vraiment, parce qu'aujourd'hui, on tend vraiment à à, imiter les, les, les standards internationaux. Et c'était important qu'au-delà du budget, que l'équipe d'experts qui a été convié à ce travail-là puisse euh, réfléchir en tout cas à définir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, différentes procédures à, adopter euh, pour atteindre les objectifs euh, fixés. Maintenant, je le disais à la fin de la rencontre que aussitôt ce travail-là fini, il va nous falloir très rapidement aller vers l'élaboration du plan stratégique. Parce que ce plan stratégique-là devrait permettre dans, logique de, dans une logique de, moyen terme, 3-5 ans, de savoir les objectifs que le complexe va se fixer par rapport euh, au nombre d'apprenants, par rapport peut-être aux, objectifs en tout cas, aux résultats à atteindre dans un, dans, un, dans un moyen terme, mais également par rapport aux sources de revenus, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, le plan stratégique permet globalement pour le complexe, dans, euh, dans un délai relativement court, de se fixer des, objectifs, mais également d'estimer de, en tout cas les sources de revenus sur lesquelles il devrait se baser pour, atteindre ces résultats-là nek chef de service finance UFR CRAC ci université Gaston Berger bu Saint-Louis waaw ñi ngi ñi ngi santat yalla bu baax tay ji ñi ngi fi dajé won euh, ci njital Serigne Ahmadou Badawi ak ci invitation Serigne Mor Faye euh, amul fi liggéey bo xamné travail de restitution mu jëm ci liggéey bo xamné ne nañu ko mu jëm ci défar euh, projet de budget démarrage complexe Cheikh Ahmadoul Khadim liggéey bi nak biñ koy door tambali tàmbali nañ fi dajé fi ak serigne Ahmed Badawi mi nga xamné mom moom liggéey bi yépp bañ ko tàmbalee léegi ñun ak moom ñoo ko ànd guddeeg bëccëg suba ngoon euh, ñu ñëwoon fi daje daje fii tamit comme sama naataango bi ni mu ko waxee sànq ci dubaab ngir am li nga xam ne moo doon euh, laltaayu liggéey boobu mu jëm ci wàllu information maanaam ñëwoon nañ fi collecté fi ay information yoo xam ne comme ñun liggéey bi dañ dañ koo dab ñu jël fi ay yoo xam ne moo ñu moo ñu may ñu mën a defar liggéey nga xam ne tey jii moom lañ moom lañ doon jébbale joxoon nañ sax document bi sëñ bi fan yee waaye xew-xew yi amuñ ci diggante moo taxoon mu waxoon ñu nañ bàyyi ba tey jii ñu daje fi ndax ñu gën a leeral liggéey bi ndax am nga liggéey moom boo ko boo boo ko bindee ci këyit tamit dana jar yenn saa yi maanaam daje ngir gën koo leeral ndax këyit gi mën naa bañ a euh, fësal lépp li nga xam ne moom lañ ciy soxla waaye daal budget bi moom ñu xam ne mooy ni ko ñëpp xamee rek ay xayma yu jëm ci wàllu wàllu koom koom moom bu ñu ko dajalee ba noppi tamit fu mu lu muy fu muy war a dem ci wàllu dépense maanaam fi ñu koy jëlee ak fi muy dugg ci liy doxal liggéey bi liggéey complexe bi xam naa foofu tamit ci wàllu communication rek damay damay damay damay profito leeral ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ni maanaam ñu baree baree bari njuumte bi ñuy xaw a def tuuti te te te xam naa loolu noon noonu la maanaam du université dong maanaam complexe la. complexe bi am na pàcc boo xam ne njàngum alxuraan la am na pàcc boo xam ne tamit euh, njàngum majalis la mooy science euh, traditionnelle di mu door a am nag enseignement supérieur ñu bare nag moom la ñuy wax rek université. moom la ñuy appellation boobu la ñuy joxe waaye ñu xam ne ñett yooyu yëpp ñoo ci daje moo tax mu doon complexe loolu moom day mat day day mat a leeral liggéey bi tamit comme ni ma ko waxee sànq rek maanaam tey jii lañ ko doon jébale xam naa euh, biñ ci waxtaanee ak sëñ bi tamit moom am na ay gis-gis yu yu yu gën a leer suñu yos yoo xam ne jooxal na ko ci yoo xam ne dana jar bu ñu delloo ñu ñu ñu intégré ko ndax ñu mën a joxe benn document boo xam ne mooy mooy doon document final bi am na tamit benn mémo boo xam ne defaale nañ ko muy wax tuuti ci ni ñuy ni ñuy ni ñuy doxale ci ci wàllu fonctionnement fonctionnement surtout finance ak administration boobu tamit am na liggéey bu am solo bu ci mbokk taalibe yi def xam naa boobu tamit dana jar euh, ñu ñu ñu finaliser waale ko nga xam ne document bu ñu koy buñ koy joxee ñaar ñëw ñëpp ñooy ñooy ànd ñu mën koo jébal sëriñ bi waaye daal ñu ñu xam naa dañuy tëje ci foo xam ne moom la ñu waroon a tàmbalee muy muy ñaanal sëriñ bi Serigne Mountakha ñi ngi koy ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko ba naal yi nga xam yépp su mëna ko te bi bokku ci te te doon yi ko gëna yittel mom suñu borom defal ko ci tawféex yo xamne dana dana ko ci am ak ndam fekke ko ci gudd fan ko and ak wër lol ak eh, mbolem ñi nga xamne ñom la andal liggey bi te ñun ñi ñun ñi nga xamne ño doon liggey liggey bi ñu gën ci japp gën ci ragné serigne Ahmed Badawi mi nga xamne nima ko waxe sank rek manam guddé ak bëcc ak suba ngoon ñun ñoy and liggey bi ak serigne Mor Fay mi sëñ moor mi it naa ko beral ak can ndax moom euh, daanaka heure bu ne sax lañ koy woo moom amul amul téléphone duñ ko tëjal liggéey moom wax dëgg yàlla taxawaay boobu lañ taxaw xam naa ci sant yi tamit sëñ Bousso mii tamit <laughs> danaa ko ci boole ndax euh, maanaam moom tamit yaatal nañ lool ci ci ci barab bi maanaam yu ñëwee bu ñu ko wooyee heure bu nekk lañ koy woo tamit te dañuy yaatal xam naa loolu moom day day sofu ci ci ci li ñu waroon wax sax waaye nag day baax tamit ñu ñu ñu joxal ko tuuti asalaamaaleykum wa rahmatullah Je suis Babacar chef des services administratifs bu UFR le département sciences de l'éducation de la formation et des sports pour l'Université Gaston Berger Pour Saint-Louis Je suis euh, man Moussa Diouf directeur de l'audit interne pour l'Université Gaston Berger bokkoon le comité des experts de ñëwoon di xalaat ci walum projet de budget bi waye comme nuko seigne dali daali waxe ñun ñëpp nañ sante seigne bi bu baaxa baaxa baax parce que projet complexe khadimul khadim bi manam senegal d'ici wéru at mo dana bok ci réew ñi raw ci Afrique parce que réew dañuy naan soko bëggé défar defar ci tout tank ku jël sa tout tank yoral lak ba université ci wàllum xam-xam ci wàllum yar ci wàllum liggéey donc kooku am kenn amul fayam donc nag lii ñu ngi siy ñaan képp koo xamante ne si ndaw ñor na la réew pour mu dem il faut pour nga tabax réew il faut nga tàmbali ci ci tànk yi donc sëñ bi wane na yoon bi donc ñun ñëpp nañ nañ si jaar bu bu ko defee fii ak ay at suñu réew gën ci réew mi donc loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi si sant sëñ bu baax baax a baax a baax parce que wax deug yalla mu ngi defal mu ngi defal suñu aduna di defal suñu alakhirah parce que tay ñun ñep kep am nañ njabot mais suñu sañon suñu njabot mo ñuy gën donc ku la ibil buntu bobu amo payam donc loolu mom wax deug yalla loolu mom sama xol la ko tibbe yalla ñu ko yalla fayal loolu mom yalla ñu ko yalla fayal jërëjëf matullah man ma ngi tuddu Mor Faye professeur Mor Faye euh, nekk membre comité de pilotage élargi euh, complexe ahmadou Khadim mooy kuréel gi nga xam ne nii euh, moom la Sëñ Muntaxa taxawal bi mu tàmbalee projet bi Sëñ Ahmad Badawi jiite ko ak euh, mbokk taalibe yi nekk ci raw doyen ak euh, jàngalekat yi dëkk bi léegi foofu la bokk di rafetlu lu baax a baax a baax liggéey bi ñu bokkaat tey ahousubillahi min asheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu jataay bi bu baax waaye di ko tàmbalee ci sëñ Ahmadou Albadawi di ko nuyu bu baax di ko ziar di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom laa fekk ci jataay bi te ñoom ñëpp alhamdulilah di ay kilifa maa ngi leen di nuyu bu gën a yàlla ci ñoom den ziar bu baax ah, ah bi nag. dafa doon jataay boo xam ne dafa euh, sofu sofu ci jataay yi nga xam ne moo daa am ci invi ci doxeenu euh, université Cheikh Ahmadou bi ndax bañ seetee euh, université bañ ko tàmbalee xalaat ba nëgë ni waxtu wu nekk bañ ko tàmbalee xalaat ba nëgë ni waxtu wu ne jataay yi ñu ngi doon am moo xam muy ay commission wala muy jataay extraordinaire yoo xam ne dañ ci woo ñeneen waaye waxtu ne jataay mos sañ a kon boo amee tey jëm ci wàllu xayma ci wàllu finance ak budget eh, itam dafay mel ne dara ci jataay ëpp solo ci la bokk ndax nit mënul di ndox eh, ci lu mel nii te waajaloo budget am waajaloo nan nga mën a def ba am noo ko noo ko noo ko yore eh, boo fexee ba am ni nga ko yore it dafa baax nga xam ba am ni nga ko yore dafa baax nga xam ni nga ko yore dafa baax it waxtu nekk nga xam la nga ca weesu foo ca tollu ak la nga ca jublu ci sa kanam nu mu war a tëddee kon mooy jotaay bi te loolu te loolu mën ta ñàkk te loolu lu am solo la lu am solo ndax li jiitu lépp def nañ ay euh, commission yu bari yoo jëm ci wax ci wàllu éducation wàllu wàllu académie bi wàllu njàngale bi wàllu études yi yëpp def nañ ko tubaarkalla macha allah yëpp tegu na ci yoon bu dee ci wàllu tabax gi alhamdulilah lépp mi ngi gën a tegu ci yoon saa su nekk euh, waaye loolu lépp nag li nga xam ne mooy tax mu mën koo mu mën a taxaw ak tànkam yu dëgër loolu mooy jataay bi ak di ci juddoo kon jataay bi jataay bu am solo la ñu ngi leen ci nuyu bu baax leen ci ndokkeel bu baax di ñaan yàlla mu ubbi ci jàmm waaye jataay bi itam jur njëriñ yi nga xam ne moom lañ ci doon seenu dañ jaajëfal yéen ñëpp seen coono ak seen déplacement ak seen xam-xam bi yéen indaale ci nar ko fay yónnee ak yéen a juree ji loolu lépp ñu ngi leen ci ndokkeel leen ci sant bu baax gërëm ci tur sëriñ bi. di nuyu commission yëpp nag yi nga xam ne ñoo yàgg liggéey ci université bi yëpp ci wàllu étude bi leen ci gërëm duñ leen fàtte benn yoon ndax euh, yàgg na te boobaak léegi ñoom ñëpp ñu ngi jot a kenn du daw kenn du dang daay waaye ñu beral ran ñu beral nag cant. ak nuyoo ak ziar nag sëñ Ahmadou mii nga xam ne moom yàlla moom yàllaa ko nattoo industrie bi ndax euh, moom commission yi dañuy bari bari da dafa mel ne amul benn commission buy daje boo xam ne moom am na droit bañ ko bañ koo teewee commission yëpp da koy teewee wala boog buñ noppee dañ koy rendre compte mbaa li ci ëpp boo gisee daje commission bu ne la ëpp ci say daje da koy fekk te bu ko fekkee itam daf koy assister ba ci njëlbeen ba ci muñ ko mu melne ne kon université bi nu ñepp la wara xañ jot te nu ñepp la xañ jot sax xëy waye waaye mo ci raw kon mom lolu aljana itam ñu ñu préciser leen ko bu baax leeral leen ko bu ngeen xam fi mu tollu ñaa jotaay bii kat xeyna ñakul ñeneen ño xane ne war nañ ko mëna fekke te tay ji ñi ngi nii mom mom ngeen fi gis waaye nak alhamdulilahi rabbil alamin ci ak matam ak euh, ni ko sëñ bi tan ak ni ko sëñ bi seddo ba tan ko taxna doyna doy doyna doy na nu bu baax ci ci mom rek mu tew ci jotaay bi Euh, sëñ bi doyloo na ko ci ñi mu seqal liggéey bi macha allah ñoom it doyloo na ko ci ba ci man mi sama bopp jotaay yi ci ëpp du ma ko fekke waaye day ak fekkeem daf may suur daf may doy sëkk ba gëm ne fekk googu teewa daal na ñëpp kon loolu mooy li nga xam ne mooy li am tey kon daal ci gàttal euh, liggéey bi am na solo euh, ñu ngi leen di wax waa leen góor jaa leen jëf joo xam ne soññe la maanaam di courage lañ koy tuddee waaye ma wax leen ne di courage nañu góorgóorlu bu baax gën a dem ci kanam te li ngeen wax léegi euh, maanaam jéego avenir la jéego bu am avenir la boo xam ne ci kanam incha allahu ñun ñëpp daanu jëriñ euh, ñun lim nuy jëriñ mooy xam ne taxawal gi bokk nañ ci ndax bëri góob mbartal boo xam ne boo tegee sa loxo boo tegul sa loxo mu dem boo ko fekke ba mën caa teg sa loxo da ngaa war a kon nun lim nuy jëriñ mooy loolu ñoo am ci tiyaaba ji eh, xam ne bokk nañ ñu ko taxawal waaye ña koy jëriñoo dëgg mooy suñu njaboot suñuy doom ak suñuy sët dana tàmbali sax tey balaa yàgg ñu tàmbali njaboot gi ñu gis leen ñu ngi waaye ñoo koy gën a jëriñoo kon daal alhamdulilah sëñ mi ngi lay sant la gërëm di sant commission yëpp waaye yéen ñi fi teew itam ci war a waxtaan ci wàllu finance war a ko càmbar mi nga xam noonu la war a demee dëgg-dëgg te kenn ku nekk ci yéen fa mu jógee loolu la fay liggéeyee te la mu fa yor it la fay liggéey ca loolu yit moo ko jiite wala mu bokk ci ña ko jiite loolu wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa rek mu am loolu moo mën a am loolu loolu loolu loolu loolu yombul waaw kon daal ci gàttal ñu ngi doolee sant sëñ bi doolee sant sëñ Tuubaa bu baax sant sëñ bi nga xam ne moo nu moo nekk ci bopp yoon wi tey te yàlla dogal xalaatam bu njëkk ci biir liggéey bi muy liggéeyal sëñ Tuubaa nekk ci bopp bi liggéeyam xalaatam bu njëkk di lii di université bi ngeen ñëw jàppale ko ci yéen ñëpp kon moom it ñu koy sant waaye ñu ngi leen di sant ñu ngi sant commission yi ñu ngi sant sëñ Axam bu baax a baax a baax maa ngi koy defal defal naa ko léegi ab benn compte rendu bu ndaw ci luñ doon dox ci loolu waaye alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi sant nañ la gërëm nañ la la jéggalu ci eh, <laughs> gàtt gi ak eh, yeex gi ñëw yëpp ñu ngi ci jéggalu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ني ييكتي سونو كادو ديكو تامبالي سي سونو نيو بو سد بو سيل بو تاد اك سونو زيار ديكو جيمالي سي الشيخ محمد المنتقى نيان سونو بروم بايكو فيتا مايكو وير بلي ما يينه ليغيال الاسلام سي تولب سيرين بي لب مو مان كو ديف نيما كو بوغي تانو اندكو اك موم دي ام بكتي مو تيواتي جتاي بي مو بو ام نيكو سيرين مام تيرنو واخي jotaay boo xam ne dafa sofu rek ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ba sëriñ bi joxe ndigal ci liggéeyam bii ba fi mu nekk ni yaatuwaayu liggéey bi nag moo tax mu doon ay kuréel yu bari ay commission yu bëree bari ba daanaka ay bis gu jot rek dana am ñu daje ay bis gu jot rek dana am ñu daje ñu bokkut ak ñu daje woon waaye liggéey bi moo yaatoo moo yaatoo noonu moo amee solo noonu tey nag ñi tase woon mooy ñi nga xam ne ñooy xayma koppar yi nga xam ne moom la ñu soxla ngir mën a doxal liggéey bi ak koppar yooyu fu ñu koy jëlee ak buñ ko jëlee ba noppi naka lañ koy jëfandikoo waaye tëral ay yoon yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo itam dana mën a am ñu nekkaat ci seen biir di ko saytu ba bu nu noppee nu man ne nangam lañ soxla woon nangam lañ am nangam ak nangam lañ ci def ñi ko doon def itam nii lañ ko defee mu doon lu am solo nag ci jamono ji nu toll ndax niñ koy waxee daare Cheikhuna Ahmadul Xadim daare juy jàngale la dafay jàngale mboolem fànn nay dunduk doomu aadama moo tax ni ñuy yore lu ñëpp bokk itam daa bokk ci li ñu war a jàngale fii kon lii ngeen doon def tey bokk na ci liy jàngale loolu alhamdulilahi rabbil alamin ni ko sëriñ bi waxee léegi ay boromi xam-xam daje fi yoo xam ne yemuñu ci doon ay boromi xam-xam waaye dañoo doon ñoo xam ne dañuy jëfandikoo liñ soxla fi mu nekk nii moom kenn ku ci ne fa mu nekk ci université euh, Gaston Berger ak université virtuelle am na itam ñu ngeen di jokkal ñu nekk université Cheikh Anta ñu nekk université Bambey muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci université sénégalais yi di yor liggéey boobu xam ni mi doxe ñoo doon tëral nag bii naka la war a doxe loolu kon ñu ngi ci sant professeur Mor Faye mi nga xam ne ci commission pédagogique bi la bokk waaye nag féete ndar gis nañ ne moom waa ndar da leen a beral loxo seenu njàmbaar ak seen pas-pas waaye moom itam beral na leen loxo lool ci liggéey bi kon ñu ngi ko ci sant baax di ko ci gërëm di wane ne bi Cheikh Mouhamadul Mountakha yëkkatee kàddoom yi am solo yooyee jëmee ko ci woote liggéeyub Cheikhul Khadim bii nga xam ne nu ñu koy waxee wax waxtu wu ne modèle éducatif wala système éducatif la boo xam ne mooy bu sëriñ bi waaye mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu dikke woon rek am na boroom xam-xam bu sëriñ bi ne ko antal murabbi kama rabbal aminu ni nga ne noonu bi sallallahu alayhi wa sallam yare non ngay yare kon yow yaay jàngale ni nga xam ne yoon noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngalee xarfan bi harfin la ca teg maanaam njàngalem sëriñ bi mooy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon daaray sëriñ bi mooy daaray l'islam yoo xam ne dara raxu raxu ko loolee nag moo tax ba bi sëriñ bi yëkkatee kàddoom mboolem bokki taalibe yi ñëpp jóg ak ak seen kàttan ak seen pas-pas fekk si ko ku nekk ci wàll gam amee loolee nag kon day baax loolee ñuy indi itam ñu teg ko ci yoon woo xam ne ñëpp danañ xam ne li ko taxoon a jóg fii la fii mi ngi ci dem nam ca war a demee loolu kon seen liggéey bi bu ama am solo la boo xam ne ni may tooñee waxtu wu ne euh, commission bu daje ma leen bii mooy ci ëpp solo waaye seen bopp bii nag moo ëpp solo moom loolu moom ñoome naa ko wax ci kaw <laughs> mooy fi nga xam ne mënta ñàkk kon ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm ci li ngeen def lu rëy la ndax itam bàyyi seen yitte bàyyi seen jógal seen bopp ñëw di ko def rek xidma ngir xidma xidma mooy nga def lu baax te yàlla rek tax te loolu mooy tasawuf mooy ihsaan di jëf ngir yàlla te yàlla rek tax loolu mooy li ngeen def te lu lu ama am solo la yëkkati seen xam waaye yëkkati seen i jëmm seen i tànk ak seenu jot ñëw def liggéey bu toll nii kon ci turu sëriñ bi ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di ñaan sunu borom itam li mu dële ku jëfal yàlla mu defal leen ko ci te defal ko mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jëf jëf ju baax feneen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa